ma mën dugg biir màkka euh, seetaan yi la sama morom mi gone yi seetaan daal léegi dana baax nee na kooku ne ma bismillah daal muy téyel sama jur ba ma demee dégg ndënd mu ñu tëgg ma laaj la mu ñu ne ma ak ceet la ceetu diw ak diw la nee na ma dem fa bëgg déglu po ma fa am waaye ba ma àggee rek la ma yàlla xëpp ay nelaw damaa nelaw ba jant bi tàngooru jant bi moo ma yee dara xuuma ko ci caaxaan yooyu ñu dënd nee na yoon boobu laa ko ma sa ittewoo yàlla dox sama diggante beneen yoon bi ñuy sàmmati jur gi maag kooku ma waxati ko lu mel ni la ma ko waxoon ni ko damaa bëggoon nga xoolalaat ma ma dem màkka seetaan lañuy lañuy def dal ni ko sama morom ñëpp def ñaa mun ma waaw ba ma dematee mel noonu dalaat ma damaa nelaw ba jant bi tàngooru bi moo ma xam ne loolu du sama piir kon mësta jaar ci lenn ci li gone yi daan jaar li gone yi mu nekkaloon ci màkk ak dencam xadija yonte bi mu demee ba toll ci ñaar fukki at ak juróom la tukki woon dem Syrie kon tukki boobu mooy yoonu ñaari lan ci Syrie ndax bu jëkk ba bàyyam bu ndaw la àndoon tolloon ci fukki at ak ñaar yoonu toll na ci ñaar fukki at ak juróom demaat Syrie waaye la ko fa yóbbu mooy commerce moom doon commerce eh, te alal ji booba Khadija jigéen ju ñuy wax Khadija bint Xuwaylid moo ko moom dafa doonoon commerçant bu amoon teraanga doonoon ko bari alal daan jël ay góor ay waxambaane yi dëkk maaka mu leen di jël di leen jox ngis ñuy dem di commerce bi eh, di ko eh, buñ indee bénéfice bi mu am cër buñ cay am yonente bi bokk ci ñu ñëw jël si marchandise ngir doxeek moom noonu yi boole ko ak benn jaamam bu ñuy wax maysara maysara moo doonoon surgëb Khadija moom ñu ànd jaay jënd lañ war a jënd am it tono ju bare bari bénéfice bu bare bari fekk leen ca loole Maysara moom yi mu ko boole loolu gis na ci jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak i melokaanam euh, lu ko jaaxal bi mu ñëwee mu nettali ko soxna gis ci ay melokaan soxna Khadija daal di yéemu ci jikko yooyu ñu ko wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa la mu daan dégg bénéfice bu bari bi mu am ci commerce moom yonent bi doon commerce yi mësu koo am mu am lu mu ci yëg loolu moo waral mu yable ci yonent bi di sàkku mu denc ko te ku ne xam ne ni gone gu góor gu toll ci sàkku métier am na ñeent fukki at ci jamono booba waaye nag borom alal la woon boo xam ne ñëpp dañ ko doon wut si loolu xel sax ak xekk ma nanguwul muy ñëw di sàkku ci yow ne la kaay nu bokk ngay gàntal moo tax soxna Xadija bi mu yónnee ci yonente bi sallallahu alayhi wa di sàkku ci moom mu denc ko yonente bi nangul ko ko daal di wax bàyyam bu ndaw boobu di Abu moo yónnee ci mbokki Xadija ñu fasal ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam euh, bokk na ci ay melokaanam jëkk nubuwa gi lépp ñuy waxtaane booba nubuwa gi ak sekul yàlla yónnee ko waaye day ay li ñuy wax tamhiid mu yàlla dana ko melal ay melokaan yoo xam ne danañ ci déggee yan bi nar a yanu ji ci kanam bi yonente di tollee ci fanweeri at ak juróom la am taw bu mag a mag ñëw bi mu ñëwee euh, xaw a mabbu mabbu miiru kaaba bi bi ko mabbee waa Xuraysh ci saasi lañ daal di jóg dajaloo ne nañ ko tabaxaat waaye ba ñu koy tabax ba agsi ci war a teg euh, doj mi wax alxajarul aswad te mooy doj bi gën a tedd ci kaaba bi duñ toll ci teg ko dañ caa am ay jéyo ndax giir arab yi dañ daan def ay giir giir gu ne it day am lu mu yëg ci boppam ñun nag gépp giir goo xam ne moo jël alxajarul aswad teg ko ci place bi rek day mel ni mooy kilifa xureesin gépp te loolu kenn du ko mën a bàyyee moroom ba ay xëccoo am ca ba ab xeex sax xaw fa am xaw am waaye am nenn mag mu fa nekkoon naa li wolof di wax naa mag mat naa ba ci dëkk mel na mag mu fa nekkoon mu ñuy wax euh, Umayya Abu Umayya lañ ko wax Ibnul Mughira moo leen magoon mu ñëw ne bu leen juyoo léegi seet leen ku ngeen gërëm ab atem ku ngeen gërëm loo ab atem ko seen diggante ñu daal ni ku jëkk a dugg si rek moom la ñuy gërëm loo mu atem rek ku jëkk dugg si buntu bi daal ku jëkk a dugg si rek mooy ki ñuy atte far yàlla mi dogal dogal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jëkk dugg si ba mu dugg see ñu ne waaw radina bi ñun ñëpp di ci d'accord nañ ko ndax mooy al amin xam nañ ko ci al amaana ñu d'accord ci loolu yi ñu wax ko la ñu doon xëccoo waaye ci xelam mu rafet moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu leen andi leen ambalaan ñu dem andi ambalaan bañ ko tegee mu jël xajarul aswad ca loxoom bu tedd ba teg ko ci kaw mbalaan daal di wax kilifa yi giiri Xuraysi ni ni leen na kenn ku ne jàpp ci ab coll ci mbalaan kenn ku ne jàpp ci aw cat ñu yëkkateendoo ko bañ demee ba taxaw fañ ko war a teg ci ci palaasam ci kaaba gi moom moo ko yëkkatewaat ci loxoom bu tedd boobu teg ko ci palaasam nga xam ne atte boobu ba mu ko atte woo ba ko attee ñoom ñëpp d'accord lañ ci te boobu nu buwoo gi ak seegul muy toll ci fanweeri atam ak juróom muy ay melokaan yoo xam ne yàlla daf ko jubloo junj ci yan dem ko nar yan ci euh, la mu daan liggéeyee nag jëkk nu buwoo gi di ñëw tuuti la donne woon ci ay way juróom ci mbir ci alal alal ak bagaas tuuti la ci doon kon dafa màgg di ab jërëm nga xam ni eh, bi mu tolloo ci fi ñu fi mu war a liggéeyee sàkku dara dal amul benn sukkandikuwaay bu muy sukkandiku eh, lu dul di sàmmal nit ñi ñu di ko fay kon sàmm la jëkk liggéeyee moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni yàlla mës a yónni benn yonent te du sàmm na ak jur ñu ne ko ndax yow sàmm nga ak yonent bi saxaaba yi wax ko loolu mun leen waaw daanaa ko sàmm ci sàmmal waa Màkka ci ay dog yi ci wurus yu ñu may jox bi mu demee ba doon mag nag la dugg ci am commerce mu ngi bokkoon société ak ku ñuy wax ak Saïd ibnu Abi Saïd ñoom ñaar ñoo bokkoon société bu ñuy bokk di commerce naka noonu it yoroon alali Xadija yóbbu ko saam di ci liggéey ci ak pay gum seq moom mu di ko ko fay comme ni ñu ko waxee woon bu jëkk bi demee nag ba denc ko di liggéey ci alali Xadija kon yaakaar naa danañ mën a taxaw foofu bu benee ne ñu tàmbalee ci nubuwa gi tàmbalee ci nubuwa gi ndax lii ab tamxiit la jëkk nubuwa gi di ñëw ñu doxee ko noonu bu ko defee bu ne rek eh, luñ ci mën a dolli ci ay jariñ ñu di ko ci dolli